wii dañ koy dooree L'Obs coow li nga xam ne am na fi fan yi muy coowul xaj mu ñaaw moomu nga xam ne euh, jàppoon na taalibe bi amoon fukki at ak juróom gis nga lim ko def waaye de moom dugg na ci loo xam ne euh, gaalu euh, li ñuy wax ne car rapide sàmbalaw bi. yii ràpp ko def ca la dugg de rey nañ ko. Mhm. xaj ba xaj ba rey nañ ko. waxuma la sax moom waaye ñetti pitbull yu mel ni moom mook ñetti xeetam ren nga ak beneen xeetu xaj bu tudd rottweiler mhm. moom it dee na waaw ñu rey benn berger allemand ñoom ñëpp na autorité administrative bi maanaam sous préfet bi daal moom moo joxee ndogal bu ñu ñu faat leen ki nga xam ne nag moom moo leen doon yar nekkete yow moom éleveur clandestin la woon moom amu joon benn ndogal amu joon benn droit waaw moo tax it jàpp nañ ko ba yóbbu nañ ko garde à vue ba daanaka dinañ wuy ji procureur waaw xel na ko daan de. ah moom koy doy na waar. moom dommage gis naa ko foofu. foofu noonu daal. Mhm. waaw loolu daal doy na waar en tout cas ci l' daal moom photo bi ñu wane nii moom xaj bii ñaaw na génn xeetu ñaaw goo xam ne xam naa ko mu dajal moom daanaka euh, mbir mi du du baax ki nga xam ne nag moom mooy Abdou Latif Coulibaly xam nga moom moo nekkoon euh, ancien ministre la woon. Mhm. nekk responsable. Euh, culture waaw fi mu nekk nii nag nee na moom xam na ne leer na ko ne day nekk maire Sokone. waaw parce que nga xam ne moom mooy euh, Petit Gueye nekkoon fa maire moom nee na kooku moom leer na ko sur presque à quatre-vingt-dix-huit pour cent que dañ koy daane. Ah, waaw donc kon moom daal am na. ci waaw am na ci lu dëgër loo xam ne que li nga xam ne nag ñoom ñooy sénégalais yi nekk diaspora euh, fële nga xam ne moom mooy Allemagne ci Berlin ñoom daal fa lañ def quartier général demande d'asile yi waaw waaye nag li ci xaw a jaaxal daal mooy dañoo jékki-jékki nekk ay jaaykatu drogue. Mhm. waaw l'observateur daal loolu wax nee na hashish ak ay cannabis ak cocaïne ak yi ak xeex yëpp daal mi ngi fay mi ngi fay kii ñu ngi ko fay jaay waaw donc kon foofu ci Berlin euh, donc euh, quartier général bi nga xam ne sénégalais yi fa la nekk daal mooy indi euh, problème Sadio Mané nag coach bi nga xam ne moom mooy Demba mbay muy coach génération foot mhm. nee na Sadio dafa organiser woon dundam yëpp bul nekk meilleur jour donc kon daal mu mel ni résultat yi waaye yàlla fekk si na ko euh, mu mel ni résultat yi am na ko. le soleil le soleil quotidien moom dafa wax xëyee ci xëtam bu njëkk mu ne dafay am rencontre bu mag fële nga xam ne moom mooy Élysée ca France. donc mu mel ni sax mooy fii am Macron dëkk président France. président France fi mu dëkk waaw mu mel ni euh, sunu président bi gis nga euh, li mu defati di dem France joxe bon exemple dugg ci Air Sénégal. Mhm. dem Géttu Bay. Mhm. waaw moom loolu la def de. yow président nga xam Géttu Bay. non moom moo dem non. Eh, xoolal defal naa compagnie bi amul Ah, non xam nga ni ñuy faral di waxee. géttu bay Air Sénégal du ñu sponsorisé de bon. soo waxee noonu non non non comprendre loolu. amul géttu bay déedéet comprendre amul géttu bay dañuy faral di wax nañ

donc mu nekk benn sommet boo xam ne incha allah rabi dina fa dina fa dem euh, ñu gis ne fële nga xam ne moom mooy tubaa Mbacké nag xale yi nga xam ne dañ doon faatu fi mu nekk nii am na recul bu baax tout tànk yi macha allah dañ doon judd wala xale yi di dee fële ci Touba mais fi mu nii am na recul bu bu am solo boo xam ne daal euh, nekk na si donc kon dèjà loolu doon na loo xam ne si kaa euh, Linguère moom dem na deuxième division ah waaw dem na dem na de dem na dem na te yàlla xalifa waaw mu mooy si quotidien mu nekk ci quotidien moom dafa wax ne euh, dafa am euh, ki nga xam ne mooy entretien bi ñu def diggante euh, mag yi ak ki nga xam ne moom mooy Soham Wardini donc nag xalifa moom nekkoon na au menu. mooy maire su Dakar waaw fi mu nekk nii daal ñoom lépp loo xam ne ñu ngi koy def. pour ñu mën a libérer Khalifa Sall. Mm. fi mu nekk nii ñu ngi si ñu ngi si kii ñu ngi ci. waaw ñu ngi ci daal jot na jot ah? na jot na waaw fi mu ne nii daal mu wax dëgg yàlla ñu ngi ciy ñu ngi ciy waxtaan nag am nañ yaakaar ne euh, dina dina dina baax. Mm. Euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Abdoulaye Gallo Diaw nag bu PS xam nga yi seen diggante seen kër gi yëngu na si la dëkk waaw dafa daa daa daa daa gën a yëngu sax léegi ki nga xam ne daal moom mooy ah, Abdoulaye Gallo Diaw ah hmm? waaw nee na daal Tanor moom fi mu nekk nii ñaari ministre PS yi hmm. dañ ko jàpp en otage xam nag lan moo xew du ñàkk am na daal lu xew seen diggante mais daal jàpp nañ ko am na daal ba saa su ne ñoom ñaar rek lay reconduire donc ñoom daal loolu. nekk waxit la rek waxit la waaw loolu lool la loolu di. la di euh, ñi nga xam ne nag dañ doon dugal euh, dañuy doon dugg ci euh, doon dawal oto taw wala ñu koo dawal police jóg na ci seen kaw fi mu ne nii. jàpp nañ ci fanweer. sañ nañu dawal sans permis. moom lañ doon def ñoo am fit. fi mu ne nii police police fi mu ne nii jàpp na ci fanweer. yoo xam ne très bien waaw jàpp jàpp nañ leen donc kon déjà loolee eh, nekk na loo xam ne nañ si bàyyi xel baax a baax ñu am nag gëstu bu yaatu boo xam ne def nañ ci ci ñi nga xam ne tuddee nañ leen ay seex fële ci première ligue muy Sadio ak Salah. Mhm. donc gars daal ci âge beeg taay beeg pois beeg but yeeg yooyu yëpp. Eh, gars yi waxtaan nañ si bu bu baax a baax a baax géej. nañ moytu quotidien moo ko wax mhm. na nappkat yi dem géej day am géej gi day sàmbaraale day yëngu. de ah, dafa daf ñu dab si. ah, ah. ah ngi nii de ci page 3 bu quotidien daal. ko gëstu euh, page 3 bu quotidien daal ñoom ñoom. lu mu mënti demee daal suñu moro suñu euh, mbokku nappkat nañu sol seen gilet de parce que daal vague yi ñu wane ci quotidien moom rëy nañ trop. Vox Populi. Vox Populi moom fi ñu xëyee euh, moom mooy Amadou Wuri Diallo. mooy kooku nga xam ne daal dañ koo jàppoon jamono yee ci xeetu médicament yi waaw dañ koo gracier de te yëguñu ko. te tëjoon nañ ko juróomi at. daanaka yàggul dara ci kaso bi sax. waaw gracier nañ ko de fi mu nekk nii te tey dafa normalement tey moo waroon nekk euh, kii bi cour appel tey la waroon def jugement bi. Mhm. waaye waa ji neew fa de. dañ ko libéré te xamuñu nu mu demee. waaw la gracier nañ ko de. doy na waay gracier nañ ko waaw affaire bi daal. waaw ñu ngi euh, seetaan yóbbaat nañ ko ba le 27 mai daal pour jéem a. xoolaat ba xam waaw indiwaat ko fa. waaw donc dèjà loolu dafa nekk li nga xam ne. Euh, gis nga xale yi nga xam ne dañuy jël internet bi di ci photo wu. Mhm. di photo ak yu demee noonu euh, mu ne daf ci am daal kenn ku jigéen ku am 16 ans 2 millions la fay pour le fayal pour copain bi 22 ans. Ah, mu nekk loo xam ne euh, doy na waar fële nga xam ne moom PS moom coow li fi mu ne nii dafa gën a dafa gën a jéggi dayoo. waaw dafa gën a jéggi dayoo euh, actuellement sax boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy frondeurs yi nee nañ nañ def ben benn benn benn en urgence benn comité central. pour vraiment mun cee mun cee waxtaan daal parce que sinon dina nekk li nga xam ne lu doy waar lay doon xam nga taamaa la du yegg moom kese. Hmm. al hmm. démb benn camion daal pënam bay toj. mu fekk fa nit ñi ne tali yéegoon seen scooter yi ak ay nit rey ci quatre personnes. fële ca caaro waaw daal mu dëgg yàlla moom. doy na seen visite technique day mët. et puis tamit ñi oto yi ñu koy jox tamit vraiment nañu nekk oto yoo xam ne mën nañu daw. waaw pneu bi daal pneu pneu pneu bee toj de pneu bi mu fekk booy yi doon gaari seen scooter yi foofoo. ña taxawoon foofu noonu yëpp mu mbëkk ñi rajaxe ñi ba rey ci quatre personnes. le témoin. témoin moom dafa xëyee nee na daal euh, wax dëgg neex yàlla euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy gargote yi. Hmm. ñoom daal dañoo dugg ci xool seen ndog yi nga xam ne dañ koy def. ba xam ndog yi ni muy demee témoin moom tey ci loolu la xëyee. Ah, am na set am na ñoo setul. Ah, moo koy doy na waat moom mais ñoom li leen xaw a jaaxal mooy témoin ñoom nee nañ dafa boycott euh, élection présidentielle yi dialogue national Ablaye Wade du wax ñoom dañu xamul Ablaye Wade moom ci boobu lan la bëgg même question boobu lañ posé wu ngan di point d'interrogation lañ ci def ah, ah, ah, Ablaye Wade lan la bëgg lan bëgg kañ ñëpp xam nañ ko mooy lan ak Karim Wade ñu blanchir kii rek wala ñu sëgal dara comme ni ñu ñoom mbir mi jaaxle parce ñoom nee nañ blanchir dossier ba wala ñu naan maanaam euh, dossier ba reviergeat ah jaaxal na de parce que fi mu ne nii Abdoulaye Wade kenn xamul ay mbiram ndax fi mu ne nii moom nangul woon joxe conseil de consigne de vote moom joxewuñ ko defar naa léegi ci biir loolu waa député PDS yi ñoom seen jëm bopp ci projet bi ñu doon supprimer poste premier ministre ñëwuñu waaw waaw fi mu nekk nii menacé dañuy dañuy boycotté dialogue national bi ñëwuñu donc Abdoulaye Wade daal kenn xamul ay mbir yu muy dox waaye non xoolal lu mu dugal nit ñi xam nañ ko mooy bëggul bokk si yëfu Macky Sall loolu leer na nag ah doxalal waay ah yow tamit. ah loolu kañ dafa lekk. bugul bëggul nekk bëggul bokk si dara lu mu lu Macky Sall di def. waaw loolu loolu loolu ah, loolu kañ nit ñi xam nañ lu mu bëgg. loolu la de benn booy daal bu nekk euh, terminal. Hmm. nekk lycéen daal nekk terminal moo menacé ne day bëgg a publier. Euh, coroom si daa defoon yaramu ne. na ko def prison la jëm ko na ko def prison la xale bi kay 13 ans la man kay fi mu ne looloo ma xaw a jaaxal. man la su ko defee. Hmm. prison la jëm nañu voté loi boo xam ne lépp képp ku jël photo jàmbur. publier ko wane ko te moom joxul autorisation. Hmm. maanaam écrite sax yaa ngi jëm prison nga nekk mineur ba a nekk nga nekk majeur. loolu moo si yem fële nga xam ne moom mooy post Thiaroye témoin dellu si na si vraiment carnage la ko tuddee. carnage la ko tuddee. Euh, rey na fa ñeenti nit pneu bee toj. daal mu am ay affaire yu Dakar Times. Dakar Times moom li mu wax nee na. Euh, sayel fi mu nekk nii ba ngay fu ne lay balle. fu ne lay balle fi mu nekk nii parce que daal euh, ay attaque yu garaaw la am ci wàllu terrorisme ñii di rey fii nii ñii def lu kenn xamul donc moom Dakar Times moom tey lépp sax daanaka si la ko def. ci la ko def ay Malek Niger ak Tchad ak ay kenn xamul daal ñu zone ñi daal mooy ñun Sénégal ak xam nga ay Côte d'Ivoire ak ay kii ñun daal wax dëgg yàlla ñun moom wax dëgg yàlla moom moom moom wax. mooy zone de conflit yi nga xam ne dafa nekk Afrique de l'Ouest waaw doy na waar enquête enquête moom tey daa xëy xëyee waa PS moom daal nee na fi mu ne nii PS moom front rek. moom coow am na fa début de front PS Tanor tamit du du bàyyi parti bi mu nekk président au des au conseil waaw mais bon xam nga waaw mais xam nga comme ñoom ay politiciens lañ donc ku ci nekk da ngay teg say plan rek fi mu nekk nii nag PS ñoom li ñuy li li ñuy naqarlu ñoom nee na lan moo tax Aminata ngi Dia ak Serigne Mbaye Thiam ñoom kese la ñuy fal ministre te mu am ñeneen ñu fa nekk donc fi ne nii loolu dafa nekk li nga xam ne daal ko déggal ah ñoo ko déggal nag waaw loolu daal waaw waaw waaw waaw doy na waa de ah, doy na waa de tànn ki la déggal nag léegi nag député bi nga xam ne mooy Mame Bounama Sall moom nee na lii mbiru la rek du leneen hmm. waaw moom daal loolu loolu loolu la wax moo ko wax de loolu la wax donc euh, fi mu nekk nii aussi euh, ñuy xool ci ki nga xam ne ah daaw damso moom xam nga ñëwaat nañ nee moom ab escroc la am daal dafa newoon ne moom doyen des juges la bu ko neexee mu ne ab procureur la tey bu dee jàpp benn ay banque di leen bëgg a rey di leen jël xaalis bu dul jeex moom daal. banque boobu tamit ñoom tamit. ah xaw ma lu xew de est-ce que jub nañ parce que tamit doy na waar en tout cas ak enquête daal ci biir daal ku fa dem ci page page cinq bi. Mhm. ñoom dinañ la dinañ la mun a wax mbiru xaj bi. xaj bu bon boobu nga xam ne mais ay image yu doy waar. quotidien daal euh, enquête moom nee na propriétaire bi déféré nañ ko. xaj yi ci boppam ñoom police jàpp na dañ leen waaw moom moom moom moom moom ak yeneen pitbull yi nekk si dëkk bi yëpp waaw en tout cas en tout cas parce que pitbull daal moom xel xaj bi man bi ma ko gisee ba léegi damaa tiit ndax hmm. ñaaw na trop trop trop trop tribune tribune nag ñoom tey li ñu xëyee ndeysaan dañuy wan euh, oh, camion bi camion bi ni mu def camion bi ñaaw na ndeysaan mooy camion bi ñu wax ne dafa dafa dafa rey nit ñi caaro yi hmm. film bi film horreur bi daal moom la kii indiwaat moom la waa tribune indi ñu xool nan la doon reyee nit ñi ni mu doon dalee seen kaw mu nekk loo xam ne daal lu doy waar la ñu waxaat ci xaj bi xaj bi daal moom gis nga xeet gi dafa ñaaw de. non mais yow waaye pël moom gémmiñam gi moom ñaaw na di ah moo tax it rey nañ ko ka nga xam ne mooy procureur bi moom déféré nañ ko au parquet également Zahra Iyane Thiam nag moom fi mu nekk nii nee na euh, vraiment politique sectorielle bi moom lettre bi mu ci am mi ngi koy xool nan la koy doxalee pour affaire yi mun a mun mun a jaar yoon bu baax a baax donc moom tey loolu la loolu la xëyee Euh, las waaw las moom dafa wax ne euh, front bu bees moom mooy ñëw contre Macky ki ko dirigé nag moom mooy Abdou mbay waaw muy alliance boo xam ne daal fi mu ne nii ñoom dañoo bëgg indi front ñoom daal dalaat ci sa waay. Abdou Mbaye moom mer na de. waaw Abdou Mbaye moom dafa dafa dafa dafa mer quoi donc am na ak groupe am nag bu mu àndal donc am na groupe am bu mu àndal daal donc ñooñu nekk na ñoo xam ne dañuy indi euh, kii dañuy indi front Amadou Gallo Diaw moom fi mu nekk nii amul loo loo xalaat lu mu yëkkul Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye. loo xalaat mi ngi mi ngi leen koy wax euh, mi ngi nekk ci ci ci laas laas ñëwaat na tamit euh, ci camion bi nga xam ne vraiment dafa faat lu toll ci euh, ñeenti nit fële nga xam ne moom mooy moom mooy caare. Walf Quotidien. Walf moom nee na pro procureur bi vraiment li mu yor ci ay pouvoir dafa bëri ah waxuma ko nag du samay kàddu. man de dégguma dara. waaw Walf Quotidien ñoom ñoo ko wax nee nañ liberté provisoire ay mandat de dépôt ay appel systématique yooyu yëpp procureur bi daal pouvoir exorbitant yi nga xam ne daf ko am. ah moom moo ko wax man waxuma ko. man ko waram. waaw mais xam nga comme ay mbiru procureur la. man man ak ñoom. ah déedéet nu ma ko war a am nag. Eh, dafa ñu nenn quoi ah, comme procureur bi daal comme am na ay pouvoir eh, na ko doxal. Mhm. waaw na doxal ay ay ay ay ay pouvoir am daal don kon dèjà loolee nekk na li nga xam ne eh, nañ ci bàyyi xel baax xam naa daal ku bi biir quotidien daal dina gis affaire procureur li ñu ci wax man na xam naa du ma ci xaw a sori quoi. Mhm. li nga xam ne moom mooy. moom mooy grâce bi nga xam ne dañ ko jox Amadou Wade jaal maa la ko doon wax mhm. daanaka wax ji nag mooy booy bi génn te kenn gisul trace su grâce bi. waaw loolu moom euh, est-ce que. est-ce que euh, ah, ñoom dañoo doy waar nag eh, mën na génn nii te mystique xaw ma la nag lan de. Ah ah, ah ah lu ma si. génn na de damay laajte rek. génn na de génn na de papier papier grâce bi daal moom kenn gisu ko. kenn gisu ko booy bi nag génn kenn xamul nag nan la nan la demee nag. si buntu ba la jaar waaw doy na waar daal en tout cas mi ngi mi ngi noonu daal léegi nag ci biir loolu euh, boycott bi nga xam ne dafa am fii nii ak ministre de gaa gars yi ne loxo Karim Wade génn ci de. loolu la Walf wax de. Hmm. Walf Quotidien daal loolu wax nee na. nee na Karim Wade daal kii nii Sud Quotidien moom dafa wax ne euh, Abdoul mbay tey la la dalal ci xëtam bu njëkk donc Abdoul mbay moom euh, loo lu lu lu mu xalaat rek wax na ko wax na ci gouvernance bi wax na ci fast track wax na ci euh, dialogue politique bi wax na ci local bi yaatu na si daal yaatu yaatuwaay boo xam ne Abdoul mbay donc wax na si xam naa Sud tey koo xam ne gis na ko si rek dina dina dina ko xool xale bi nga xam ne dañ ko rayoon nag fële Ndar Fallou Sène. Hmm. xam nga am na un an na at. dafa gaaw. mat naat fi mu nekk nii de léegi nag ñoom sud daal lëxmët nañ ko xool nañ ko si ba ñu bind ne loolu jamais raconté maanaam li ci xew daal kenn lu ci kenn mësul nettali ñoom nee nañ dinañ ko nettali tey libération libération moom li mu wax dafa ne UBA euh, ak BIS ñoom daal fi mu nekk nii waa ji xaw na leen rey waaw moom doyen des juges boobu mu ñu waxoon ne doyen des juges wala procureur la moom daal ñaari banque yooyu la simili la simili moom di leen def lu kenn lu mburu dajul ci taal libération nag def ci enquête exclusive waaw donc xam na ñoom dañoo xarañ ci côté boobu. waaw donc kon moo tax xam naa ne bu ñu bu ñu ko du ñu duggee xool daal euh, dina ci am lu leer a leer a leer yoo xam ne daf si daf si def si taxaw donc euh, ki nga xam ne nag yaa ngi koy fàttaliku mooy coow li amoon ci diggante Ginteus. Ginteus xam nga amoon na fa ay coow ak coonsay waaw léegi nag après xam nga gars yi dañ ko fee agressé woon ba mhm. yàqate kanam bi yëpp fi mu nekk ni information judiciaire ibbi nañ ko pour tentative de meurtre. Mhm. Oh, moom moom gis Hmm, tentative de mode moom loolu diis na de oh, oh, oh. les échos les les moom li mu wax nee na xaj yi nga xam ne dañoo xaje woon rey nañ leen xaj yi doon xaje woon doon def yëfu xaj waaw rey nañ leen xaj yëppay def xaj waaw waaw ñu mais ñii dañoo gën a xaje nag hmm, ñii dañoo gën a xaje muy pitbull waaw dañoo gën a dangereux hmm. donc rey nañ leen propriétaire bi moom déféré nañ ko naka de moom tamit daa nekkoon jàpp xaj yi daal def ko arme kon neex la ci nekkee woon di menacer gars yi def lu ko neex waaw far affaire bi daal def na ko ki nga xam ne moom mooy Sadio Mané xam nga ne dafa def jaloore fan yi ñu tuddee ko the best macha allah waaw the best nag lu ne wax nañ ko ci ay point El Hadj wax na ci Yaya Touré wax na si Amadou Diop Boy Bandi wax na ci ñom ñëpp dal wax nañ ci lo xamne xam nañ ko na xam na ne buñu démé fa la nga xamne mom moy les échos buñ ko jëlé dal dinañ mëna xol ba xam lan moo si nekk réew mi quotidien réew mi quotidien mom dafa wax ne lak yi nga xamne amna fani ci Marseille

par force. léegi nag waaw dañ lay laaj ndax euh, sa jabar bu demee signé ne d'accord na pour nga takk ñaareel. non dafa am benn loi boo xam ne dafay tax nga mën a takk ñaareel. mën a waaw léegi mais dafa am condition. condition bi mooy sa jabar aw aw mooy ñëw ne <laughs> aw mooy ñëw signé waaw léegi bu signé. maa ngi reetaan sax nga takk. léegi am na beneen dëkk tamit xaw ma daaw na xaw ma Érythrée la xaw ma Ouganda xaw ma ban dëkk foofu moom loi la. exigé exiger ku tu ñaari jabar da ngay dem prison. fo xam sax ñant la ah xam di. waaw mais le <laughs> pouvoir aux premières yes. wa mais la parce que bala <laughs> balaa di ne nañ di wax ne. Euh, takk dënd boobu jigéen loolu duñ ko def de loolu loolu loolu loolu loolu duñ ko def de loolu duñ ko def de xam nga fële ci Bignona aussi dafa un lycée Aïnoun Sané hmm. gars dañ dañoo dàqoon ki nga xam ne mooy proviseur bi censeur bi ak surveillant bi hmm. parce que dafa mën ay kayit yu ci defoon ci wàllu politique bi ay mbir yu ci amoon fi mu ne nii gars yi nag xam naa ne dañoo esprit de dépassement euh, dellu si nañ dëgg la ñu dem nag si euh, tàngat yaram euh, waaw stade waaw stade nag moom dafa wax ne Sadio Mané ca kaw la ko dalee ci bopp ba suuf dañ koo càmbar tas ko tasaare ko jox ñu ci ay xibaar yu wër kon waaw loolu noonu dafay nekk li nga xam daf si taxaw eh, Real am nañ gan yaa ngi fàttali ko mhm. mooy Belgique bu a fubal boobu mhm. soixante cinq milliards la ko gars yi jëndee xaaral ma calculer waa continue continue ma calculer 65 milliards dafa bëri divisé par 655 virgule 65 65 xam naa maa yonent yàlla daaw da bu ñu ci amoon ku ne benn rek daanaka ñun dañuy retraité daaw da man moom damay retraité moom moom daanaka moom damay wàcc suuf ne leen baax na hmm. moom moom waaw mu goog donc kon Sadio Mané daal Euh, fi mu nekk nii ci tànk yooyu lañ nekk di wax waaye dañu wax ne Sadio Mané punkal la waaye dañ ne Idrissa Gana Diop bi du ndaw ndawul de moom it punkal la ci biir punkal yi de kon déjà loolu bëri na de ah. bon cent millions d'euros ko jëndee. waaw donc mi ngi noonu cent millions d'euros mooy soixante cinq milliards yoo xam ne jël nañ ko. la am foofu la ñuy jeexalee ci diggante Boy Niang ak Lac de Guiers 2. boobu moom match nul mënu faa am. yii mënu ne. waaw Ali daal moom moo ko wax. man de dinaa dem. ci combat boobu. du du du yomb nag. du yomb de booy booy ñaa daal. booy ñaa daal ak la ak kii ak euh, Lac de Guiers 2 Mouhamed Ali moom fi mu nekk nii ma ngay xamb taal bi nee na mooy nekk combat bi gën a gaaw. a métti dañ ko na télé wu leen nelaw de. Ah, hmm. non dañ ko jël waxu conférence de presse ah waaw combat nee nañ hmm. nag ancien yu yi punkal yi nekkoon wàllu yëpp fi nekk nii ñëw nañ ci combat boobu pour jàpp si. ba pare ne ne ne ne combat bi terewul leen nelaw. ah loolu la ñu wax de. <laughs> moo affaire doy na yaa wax de man waxuma ko. déet ndax kii ba ko wax kañ ma koy ko. rëg moom. Mm-hmm. rëg-rëg kii nu mu tëdd sax Palla Diop manager u euh, Typhon bu Thiaré. Mm-hmm. nee na rëg bu ñu nee salaamaaleykum mu ne vip Gris 2 mu wàcc. loolu la wax de doy na ku njëkk a sa morom rek. gën ko gaaw rek am ko. waaw mais ñoo ñoo mais combat bi nii dina garaaw. dina garaaw xam nga lu tax rëg-rëg dafa mën mbapat. te Gris dafa mun xeex. Mhm. seen combat du yomb. wa combat bo du yomb Khadim Gadiaga nak mom da lay xalat ne mu nekk président Rock Énergie xam nga fan yëpp yaa ngi dégg dégg ma la doon wax Rock Énergie. Mhm. gars yi di ci coow ci problème Modou Lo yooyu. donc problème Modou Lo ah, amul problème Modou Lo xam nga la dafa dem tukki di entraîné wu pour combat am ak Eumeu parce que dafa bëgg jël couronne bi. waaw gars yi neen dafa gars yi neen day lekk xaalis sama dina lekk xaalis su ñuy jox leen xaalis ah waaw loolu la loolu de loolu de la wax de. dafa dafa tabay. xam nga amoon na fi benn mbër booy bambara yaa ngi koy fàttaliku siit boobu booy bambara dëgg naa ko de xam nga dafa tawatoon dafa tawat na wax dëgg yàlla léegi nag liñ ni ko laay nee na daa bëgg ñu def benn téléthon le vingt cinq mai xam naa pour mun koo dimbale daal nañ ko def si sutura rek nañ ko def si sutura ah. jox ko waaw jaral loolu ñu koy def donc moom loolu daal lañ wax tey ci yéen kaay mhm. ci xët yu njëkk yi xaj bi daal moom moo ci gën a kii rey nañ ko nag moom ak yeneen ñetti naataankoom ak yeneen xeetu mbokkam mhm. ak keneen ku ndaw maanaam bese almaak ay xawma bictuwéle loolu moom xeetu xaj ba man xeetu xaj yooyu xam nga leen bis wala xaw ma xam naa leen kañ xaj yu baaxuñu yooyu warloo bokk ñoom trottoir rod wila rod wila ma ne la boo ko warloo soo bokk ñoom trottoir moom ak ay doberman ñoo yem xam nga mooy mooy xaj bi nga xam ne doberman mooy xaj bi njool waa te dafa gumba doberman ah waaw waaw dafa gumba du gis waaw kooku jarul waaw dix heures day xeeñtu xanaa ah waay ma ne la du xeeñ su xeeñtuwee lu mu xamul dawal rek bàyyi ko fa te dafa te wala dafa daw

lawbe lawbe buy sëy ak géer lawbe buy sëy ak euh, voilà. Euh, rabbu maabo voilà maabo buy. voilà dinañu waxtaan. di wax na ay sun sun deret kenn du ko dilie. voilà voilà kenn ko rax. kenn du ko rax waaw mooy dilie waxtaan parce que àdduna dafa dox ba ñun ñëpp benn nañu ku bëgg sa moroom takkal mu nekk géwél ak tëgg ak. lawbe est-ce que yombee na loolu. waaw yombeewul noonu. yombeewul noonu waaye ñi ko mën a gérer. en tout daal suba. man de dinañ dinañ ci waxtaan. waaw dinañ ci waxtaan. ba pare ci li xew tey. ah ci li xew tey et puis yi woote ci serveur bi également. Mm-hmm. wax ñu seen xalaat mais daal comme géwél du du du see ak lawbe. Mm-hmm. wala rab du see kii moom. Mm-hmm. kooku dafay nekk loo xam ne doy waar la. waaw 10 h jot na ba suba incha allah morning king 7h du matin ñu war a ànd ak yéen nag ba 9h 9h Lamine Samba ak Al ak Seydina pour doxal li xew tey te thème bi nekk maanaam mariage caste yi. Euh, géer buy sëy ak géwal wala lawbe wala beneen euh, beneen beneen ethnie voilà nekk leen si jàmm ba suba incha allah. King FM.